ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ci delluwaat rek kenn ku nekk euh, si wàccuwaay comme ni ma koy defee saa su nekk nee naa leen docteur Mouhamadou Wade nag duñ ko présenté yi ndax xam nañ ko bu baax ci diggante ñaan ak paj ñu fas yéene jàkkaarloo waxtaan ci xam-xam diggante ñaan beeg paj bi nga xam ne mu ngi ci def résultat saa su nekk waaye suñu fa jógee dinañ waxtaan ci xew-xew jamono ndax am lu mu gis ci réew mi jubale jëmale ko ci kujee langue politique benn muy doxe ñi ko ŋànk mu di président Bassirou Diomaye Faye Ousmane sunk waaye assemblée bi nga xam ne tas nañ ko ba jàpp élection yi ni ki le set euh, novembre loolu dinañ ci waxtaan ndax am na loo xam ne gis na ko bëgg na cee yaatal cheikh bi ma bàyyi leen nga nuyoog mbokk askan bi bismillah barakaatuhu maa ngi lay fay di dellu nuyu mm-hmm. di la kontaane di la jërëjëfal di la jàmm sa tawfiix di nuyu mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci biir réew bi ci réew mm-hmm. di leen dalal jàmm ci kër gi dina naan bismillah barkalla atia ñëwal ma ci sa seet bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def ñu bëri ràññee la ko ndax da nga ciy def résultat saa su nekk waaw bala ñoo ñëw ci seet bi ñu naan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ndax wax yombul mm-hmm. ñu julli ci yonente bi yàlla defal ñu dégg-dégg itam ak njariñ mhm. bu ko defee wàllu seet dañ koy def waaye nag seet gi suñu seet seet gu doy waar la tarkal la ndax bërki démb rek ci mujj mhm. koo xam ni danoo demoon ci palaasu mbokkam mënuñu mhm. diw dañ ko fee jëlal vingt et maa ngi toog mu ne ma sëñ bi xool ko ba ma xoolee ma gis li may gis dama ko ne may ma ba ma àgg kër ga ma defaat ramlu ga ramlu ga waxaat loolu mhm. ma bàyyi ba guddi defaat ramlu ga ramlu waxaat loolu ma def listixaar bi listixaar bi ñëw confirmer ko mhm. kon suñu seet nekk na lu yéeme lu doy waar léegi la ñu seetal doomu aadama fàtte ko fii ci bureau bi mhm. ñu dem suñu kër seetaat ko la mu bàyyi woon ca biro ba moom lay waxaat ca kër ga ndeysaan ba mu ko waxee ñu wax ko mu ne wax nga dëgg ndeysaan man ko alal ji jëlal nañ ko waaye jigéen a la jaay te ndaw si daa xam ni xaalis a mu boole la ak ñu yóbbu ko am na loo xamante ni buñ ko defee bu soobee yàlla dañ dellu si waaye li ma ci jaaxal mooy jinne ju jigéen ji mhm. ndax jinne ju jigéen taxaw na ci dafay lëndëmal mbir yi maanaam tey ji boo jógoon sax dem pour ñuy enquête mhm. mbir ma pour mu sotti du dem fen faw ma téye jinne loolu teg ko ne boobaa booy dem muy leer mhm. xam nga dafa am yoo xam ni dafa nekk ci mbir nit ñi xamuñu ko waaw dafa doy waar bu ko defee ñun dañuy dox ba mbir mi jeex waaw ko topp ko ba mu sës mhm. ramli googu nag fii rek la am muy ramli sëñ wat gi topp mbir gi ba mu sës jox la tegtal ba bal ba tàkk mhm. bu ko defee boo ci taxawee daal da nga ci jotaat ndax waa ji gis nañ sax na mu gisee xaalis bi dafa tiit waaw balaalu ci dara far benn dix mille <laughs> la ca génnee xam nga seet bu lay seetal ba ne la dix mille francs lañ ca rocc mhm. kooku doy na waar bu ko defee itam am na wàllu listixaar mu am tabiya am raw xaanam biddéew mhm. bu ko defee mu am li ñuy wax ilmul kafa muy seetu loxo mhm. waaye seetu kurus gi tam am na fi Musa Haaruna mhm. Muhammad ak Firawna kooku moom bu dee da nga a tukki wi saaba dana sotti dana la ko wax bu ko defee mu am yeneen xeet seetu xariin muy daf ñuy xamal li nekk ci yow. bu ko defee ndax judduwaale la suñu borom ak booleeg moom. Mm-hmm. mu am yeneen yoo xam ni inna na shayatina alal kaafiriin ta'uzuhum azza nit boo gis rek. am na lu nekk ci wetam. mu mm-hmm. ko defee dañ mën a gëstu ay mbiram xamal ko mu am yeneen xeet bari nañ ci ay xeetu seet. mu mm-hmm. ko defee ñu yemale ko foofu rek dañ ci xuus incha allah. macha allah acca euh, dama ñëw ci ñetti am-am yi du leen am doom am borom kër waaye am soxna ñëwal ma ci yooyu. waaw lépp loo bëgg daal muy wàllu am maanaam ndeysaan am na foo xam ni boo demee ca alxuraan da fa fekk mhm. wan naasiyaati xarqan wan naasidaati nastan mhm. assaabiqaati sabqan mhm. fal mudabbiraati am am am am waaw wax naa secret kay jeex na lépp loo bëgg a am am na fu ñu koy jaaree dagg xaatim ba boole kook moom. falaa fala budda minhu da nga koy am ndax yàlla nee na malaaka yooyu di ñoddeeku. waaw daw maa la ko wax de. xar asamaan si yegg mm-hmm. ci suuf. waaw rocc ruux ga. waaw ruux guñ jël si am ko. waaw waaw maa la ko war dafa leer de. déggoo li ma wax lu wër nga wax yàlla daf ko waat mm-hmm. ci ñi nga xam ni ñooy daw waaw je jur par les coursiers mm-hmm. ñi nga xam ni ñoo may dawal ci sama ordre ne leen defal leen ma nàngam buñ demee am ko dañ ko exécuté loo bëgg a am. wallaay lay la ci sëñ wat waaw secret yi man rek maa ko fi génnee ci senegal la ko wax dafa leer doo ko dégg fen déedéet sëñ bi buñ la ko liggéeyale boole ko tur yàlla mhm. dugal ci xaalis ba nga bëgg waaw fala budda minhu jant ji du soo te ñëwul ci yow tarkal la déggoo li ma la waaw bu fekkente ni gàllaaj mhm. la ko defal looy yootu loo xëccoo nga am ko jaajëf fay ba ci nguur mhm. ba ci falu qulillahumma muy suñu borom maalikal mulki moom moom nguur tuutil mulka man tasha ku mu ko soob la koy jox dégg nga ah, ma wax dama ne am kër am soxna am doom waaw lépp loo bëgg fii rek ci sëñ wat boo ñëwee nga am ko waaw résultat pour cent la. wala ndeysaan joxewoon naa fi sekkere ngur yi. waaw boo ko jëlee xooj ko ci ndox. suuf si laa la wax. nga yëngal ko naan. Hmm. bu boobaa da nga amee njaboot. loolu am na mu am yoo xam ni ci tegtal sekkere nen bi. da nga koy baxal jàng ci ay baat. Hmm. nga war na ko maanaam da nga ko ñaari yoon. wala ndeysaan incha allah da nga am. ba ci am xaalis bi am xaalis xaalis moom. boobee tam mun la ko moom laa fi baaxee léegi. wala ndeysaan am sekkere basmala. Hmm. am sekkere yoo xam ni ay millions kooku moom joxeetuñ ko ci kaw ndax am na nu nu woo ne sëñ bi daal. Mhm. xam-xam gu wër dafa foto téere bi yónnee ma ko ne ma li nga wax. ci secret bi nga joxe keroog. wala risal wër la yàgg naa koo jëfe ay millions laa ci am la ko jëm bi yonente bu ko di joxeeti. tërkal la waaw moo tax it <laughs> xam nga rek jëm yonente moo foor. wala risal waaye nag la koy jox. wàllu am-am wàllu xaalis wàllu ngay xëccoo dara. wala nga bëgg dara wala nga soxla dara. Mm-hmm. incha allah loole moom boo ñëwee ci seen wat nga am ko. tërkal la ba ci yàlla nee na kataballahu mu ne man yàlla la aghlibanna. Mm-hmm. man maay gañe. nga lay risal man kan man mm-hmm. yàlla. wa rasuuli ak suma yonente boo ñëwee ci seen wat alxuraan la <coughs> muy kalimatullah mhm. mu ne muy waxu yàlla ak sunna muy waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag boo ñëwee ci sëñ wat insha allah da ngay gañe la aca ma ñëw ci wàllum xëccoo pos loolu nag xam nga ne xew na to yaa ngi ci def ay ñaan yu am solo. waaw ki ma woon ne ma dàq dañ ma ci assemblée ga waaye dama fa bëgg a dugaat. Mhm. dana fa dugaat bu soobee yàlla. ci kàttanu borom bi waaw poste boo soxla. Mhm. yi aw indal sultaan mu ne lu wuuteeg moom ak lu doon sax ci wàllu nguur ba ci pale ba doo fa bëggoon a liggéey da nga fa bokk waaye kuy wut liggéey ci tubaab ji ci poste wala ci daraja wala ci makaama wala ci entreprise wala société boo jokkoo ak ñun insha allah dan la fa jël da nga fa bokk waaye da fa sax waaye da nga fa liggéey liggéey bu doy ndax am na ñoo xam ne ñuy liggéey waaye liggéey bi day kuc kamaj waaw maanaam dafay des mm-hmm. ay heures yi ñuy xëy moo dul doy ndeysaan waaye di nga xëy te di nga fayeeku bu baax a baax a baax loolu am na ci wàllu yi macha allah acca ma ñëw ci néew kattan nga ci def euh, ñaan yu am solo ndax ci nga koy jaarale ci bi ji waaye ponte acier bi foofu nga koy jaarale waaw ñëw nga ci loo xam ne boo ci ñëwee damay sawar <laughs> mhm. muy wàllu kàttan gi mhm. ndax bari na ay ndaw yoo xam ne jamono ji dañoo new kàttan waaw bu ko defee mhm. bu dee lu la dab la rek dañ koy dindi am na ci ay tegtal loo xam ne bu la ko joxee da koy génne ci yow mu am loo xam ne ci wàllu ñaan waaw buñ koy boole koog ñàmbi ji ñàmbi gu yem laa nag ndax mbir mi noonu lay toll lan la laaj bu doon waaw mu am boo xam ni kàttanu mbaam sëf poids lay àndal koo ko teg danaan diis na mu am yoo xamante ni maanaam ci ponte asique yi weñ la dafa mhm. dëgër yàlla moo ne wa àndal na alhadid wa jaal naa fihi basan shadidan wa manaafi alidnaas moo ko wax nee na njariñ gu bari mhm. ngir doomu aadama moom laa ci def bu ñu ko liggéeyee da nga xam ne njariñ am na waaye alquran du ay caaxaan <laughs> ndax maa farrat naa fil kitaab min mhm. shay la bàyyi dara mu am loo xam ne qum qumil leyli yaa ayyuhal mudassir fa anzir nee na jógal te na nga alerté waaw waaye ki nga koy sekkal mhm. dana xam ne alerte nga ko bu baax mu am yeneen yoo xamante ni moom maanaam safal la da nga koy def sa loxo nga ngëb ko booy ànd ak sam soxna danaan waaw lii moom ah jumboo mhm. ji la mu am boo xam ne neexal diggante la mu am loo xam ne wàllu taaxir la da ngay amee kàttan waaye yaay mujjee wàcc mhm. ndax tur yàlla al awalu am na mooy ki jiitu waaye al am na mooy ki mujjee koo àndal moom yaa koy mujjee wàcc loolu am na ci wàllu néew kàttan yi tarkat la mu ngoog acca damay ñëw ci tukki ndax mën naa ne xew na waaye saa su nekk day gën a xew rek nit ñi dañ koo jël ñëwal ma ci wàllu tukki gi am nañ ci secret alxuraan koo hmm. xamante ne buñ ko liggéeyee koko gaa ngi nii bàyyi leen gaal gi ci koko gi laa lay yóbbu Europe hmm, hmm, wala France nga tukki sa gi buñ ko ci soxee ñu def ko fala budda minhu da ngay dem da ngay am kaara nga tubaab bi du la mënal dara koko moom kenn du naan ndox ma te xaru ko bu ko defee moom da nga tukki te da nga dem te visa bi doon la yomb itam waaw secret koko gi bare na luñ ciy liggéey de de mhm. lépp laa mën a wax am yëkkati ko kooku mu nekk kawe na lool te ku yëgul garab ga du ca jot mhm. bu ko defee itam moom moom kenn du la mën a yóotu bay gar walay daanel yaa nga ca kaw macha allah ca kaw ca kanam avancement mhm. mu am yeneen xeet bari na ci ba ci wàllu noob wàllu bëggante wàllu maanaam sëy waaw kooku itam ba ci wàllu ngóora nu mu bindoo wàllu ngóora sax dañ ko ciy liggéey kenn koo xam ne da ngay néew sa ndox day néew wala sa kàttan day néew wala boog doo man kooku moom dañ koy liggéey secret bi dañ ci ñëw bu baax a baax. barkallah acca dama ñëw ci toj liggéey ndax euh, gaa yu bëri ñu ngi jàmbat léeg ñu ne dañ maa sànni korte léeg ñu ne ñi dem nañ gisatuñ leen liggéey li ñu def ci nit ñi. waaw wàllu kaaraange yi may liggéey. am na ci loo xam ni korte moom bu ko borom bëggee sànni ca keroog lay am jafe-jafe wala mu dellu ci moom. dana rëkk ndiggam. <laughs> mooy mhm. laalaake gi mu am miina gi kooku kaaraange la. Mhm. yaxfazaka allahu min kulli shay'in taxaafu alayka lépp loo xam ne daal nit ragal nga ko ci moom wala mu tëkku la. waaw si ci yow. lu wér miin gi day explosé ci kawam. waaw kooku moom jërut sax muy jéem. Mhm. bu ko defee mu am loo xam ni tamit ba tey ci xeetu kaaraange yi yoo xam ne boo ko amee. kenn du la liggéey te liggéey boo lekk day toj am na domb goo xam ne bu ñu ko defaree mu nekk ci yow liggéey bu ñu def ci ñam lekkal day toj ci ndomb laa la wax de. waaw la loo lekk wala loo naan waaye ndomb gi ci boppam. ba ci jaaro gi. Mhm. lépp la taajal lekkal. lay li sot ci saa si. am yoo xamante ne buñ la jéemee yóotu duñ la jot. Mhm, mhm. moo xam ni nga ñu lay jéem a fexeel ba ci xeet pexe bu mu mën a doon. Ah. yaxfazaka Allah min kulli shay'in yuzika la. doonte puso la sax. waaw wala aw xaj wala aw maanaam jiit. waaw fit du la mat. loolu lu am la ci kaa. tarkalla kon mu ngoog acca euh, ku bëgg a ko. foo ko jaar foo ko jaarale wàllu yëkkati gu wax naa la léegi ci secret koko gi waaw mu ko waaw war a fax naa huma kaanan aliyan mhm. koko gaa nga ca kaw dañ koo yéegal walaay ndeysaan boobaa am na nun koy liggéeyee dañ la yéegal ci kaw waaye mu am ci ay turu yàlla yoo xam ni dañ koy sikkar boole ko sutur dugal ko mhm. bunt baytil mhm. ko ilaa da nga am yëkkati gu da nga am daraja waaye waaw am na ci turu yàlla yoo xam ni mën naa ko fi baaxee rafiu darajaat zul arsh bu boobaa moom sa daraja dana kawe lool lool ba ci aaya alxuraan bi ma wax ni <laughs> ba koo xam ni sax danga nga demoon ba fay aw man kaana mayitan ba neen sax nit ñi ne kii fay na ba dee wet waaw waaw boobaa dana la yëkkati yëkkatiwaat insha allah wa yaj'alahu fi nuuran yamshi bihi fi nnaas ñu yokk la leer doxal say mbir ngay dox secret yàgg naa ko fi baaxe ñetti nen yi <laughs> nga yëy benn toog waaw yéy benn tëdd yéy benn toog yéy benn taxaw moom ah. say mbir day dox ko moom jàppal ni toog muy dox la macha allah am na ci secret waaye nag gaal gi fi suux ah. jamono jee waaw ah. oh xaa bicha moo ma xamal ne ma dëmm yaa ca ne waaw tey wax loolu doy na waar de. Mhm. gaalu mbuur gi. waaw am na dëmm. waaw yu fexe ba gaal gi jaxasoo. li nga tee nii lan la nii. waaw kii mooy cuuraayu dëmm ji. waaw gars yi nañ xel di ko suuru di ci bàyyi xel. Ah. loolu kenn du ko yéeg ak bopp nen waaw rawatina nag ñun dañ koy aaye sax. Mhm. yéeg ci gaal ndax visa bi moom. waaw koko gi waaw lan lay yóbbee France foo bëgg a dem réew boo bëgg a génn dem mhm. ci koko gi lan ngay jaare liggéey la nga génn réew mi dem waaye nag suur gi na ngeen ko bàyyi xel mhm. ndax dëmm yi bëri nañ ci gaal gi mhm. gaal gi moom dëmm yi bëri nañ ci gaal gi suux mbuur waaw fi nii xaabisa moo ma xamal ne ma am na dëmm gu indi maanaam coow lu rëy. gaal gi mm. ba yi jaxasoo gaal gi suux. Mm-hmm. nañ ci bàyyi kon sugub saangoog. sugub saangi tii kii ngeen fecce am suuru. waaw boo ko suuroo day dëmm bi dala daw waaye bu doon da ngeen dëkk itam dana jëfaru wax. waaye itam donte benn bant damit moo ne ci yow. waaw dëmm lu la jege booy dox ci mbedd bi da ngay gis nañ lay xeeloo. boo bëggee xàmmee dëmm. waaw dëmm ku dul dëmm. Mm-hmm. wutal ci sungufu wet bi nga def sa poos. macha allah da ngay gis gaa yi nu lay geeloo da ngay gis nit mu romb la di geelu di daw faay tarkal la acca <laughs> ñëwal ma ci bayre bu saf sàpp bi nga xam ne yaa ngi koy def waaw wàllu bayre gi wàllu mm. bayre gi moom yàgg naa ko fi baaxee <laughs> waaw bayre naa saf ñëpp ñëpp saf ma baa ngi fi waaye bayre ñoo xam ni nan la sopp itam waaye nan la jox waaye itam day ànd ak kaaraange mu am bayre place ba mm-hmm, jaay mm-hmm. bayre tukki bayre tubaab bi waaye ba ci bayre événement wala organiser dara wala nga bëgg siiw wala buzz waaw yëpp dañ koy liggéey ci xeetu bayre yi bu ko ba yéeme goro bi waaw waaw bu dee da nga am koy bëgg xaral ma goro gi ñaar ñu jox la baat nga jàng ko ci joxe benn bi beneen soxna soosu moom téye nga ko dafa doon sam soxna itam mu am lonk gi ba ci xeetu noob yi mhm, mhm. lu bëggeel wala ñaar ñoo bëgg a jubóole wala ku mere moromam at faqal xadab xanaa xamoo am na ki la rek nga bëgg a fay mer sa digganteeg moom loolu am na ci secret yi mu am ba tey ci wàllu bayre yi mhm. loo xam ni da ngay dem nit ñi yëkkati jox la waaye dañ lay wékk wala ku la gis sopp la wala nit ñi topp la ni xaj di toppee boromam wala nit ñi bëgg la ni bëggee xaalis xaalis moom yaakaar naa kenn bañu ko am na ci xeetu bayre yi bu ko defee mu am bari xeet bayre bukki mhm. am na fi bayre jigéen am na fi bayre góor am mhm. na fi bayre yi daal lañ ci yor macha allah mënun wax lépp tur yàlla yi bari nañu tarkal la secret yi bari nañ ci wàllu bayre yi mu ngoog mhm. ma ci gàllaaju sàcc bi ngay def waaw gàllaaju sàcc wala gàllaaju noonu wutal ma goro bu xonk bi waaw bu ko defee nga ŋàdd ko boo ko ŋàddee def baat yiñ lay jox bu boobaa sàcc ga dana weeru bu ne dalaa jëlal balaa 24 heures mu weeru ñëpp ràññe ko ndeysaan ndaw si ma newoon dan maa jëlal écouteur te scooter gi sax moomuma ko. sama gan moo ñëw sama kër ñu ne tunget yóbbu scooter bi. mu mm-hmm. woo ma ne ma damaa jaaxle sëñ bi ci tik TikTok balaa la gisee. Mm-hmm. damaa jàpp ni sëriñ amut ma ne ko sëñ soxna si mu ne maa ma ne ko wutal ma sàngam. Mm-hmm. fañ jële woon moto ba. waaw bisal ma ko foofa nga dem toog sa kër. dafa maa message ne ma sëñ bi am naa ci xibaar. te sàcc bi ñett yoon dugg na ko sama kër ramasse sama portable borom kër ramasse suñu lépp luñ yor yóbbu sama moto borom kër waaye bii yoon moom ci yow la feeñee te sëriñ bu ne dem naa fa sëriñ sëriñu jinne dem naa fa te daw saak may déglu te fii la ma déggee ci 221 people muy mhm. jaamu yàlla ju rëy mhm. yéen a ngi koy def ndax fii mhm. ku mën a fi jaar ku mënut jàmbar du fi jaar de ñun ñu ngi fii ci kër gi bi muy sosoo ba tey waaw li ñu nekkee dëgg rek mooy dëgg. loolu dëgg du wéy lu wér waaw loolu moo fi nekk. tarkal mhm. jërëjëf acca waaye xam naa bii moom soo ci waxtaanee ba fekk ngay daaneel gars yi dinañ la déglu yaakaar muy tas ndax dafa bëri de. xaw ma lu def nag yaakaar buy tas moom lu koy waral bari na lu koy waral ci doomu aadama cat dana ko yóbbee doomu aadama rab dana ya tas yaakaaru doomu aadama yaram bu tilim dana tas yaakaaru doomu aadama waaye léeg la nga xoolal nit gis nit dafay mooy yàlla lu bari mm-hmm. loolu tamit da koy yóbbee yaakaar tas ak bàkkaar waaye day wàññi wërsëg mm-hmm. waaye itam gàllankoor wala ñu liggéey la takk la wala nga kumu nga xam ne da ngaa tëju kumu nga xanaa xamoo nen gi ma nen gi nga jàng ci ay baar raayug saw yaram nga toj ko kumute gi dañ na masha Allah waaw am na beneen bu boo xam ne ci ginaar lañ koy liggéey nga togg ko lekk ko da nga tijjeeku am xaalis ba dañ la yéem waaye naat bi moo gën a garaaw am na naat boo xam ne buñ la ko joxee jox la ay baat wala turu yàlla bi nga boole ko moom togg ko itam da am alal dana yéem yaxya boo ca pare da nga ko boole suur ko sa biir kër njaboot gi ñëpp ay am lu ñu wuti yootu ñu am ko seen yaakaar dootuli tas muy examen muy BFEM mhm. muy diplôme muy bac école baa ngi waaj a ubbi mhm. ba ci kiis yi ak neexal xel yi kooku yor nañ ci ay tur yàlla yu bare bare bare bare ak i secret lër acca ñëwal ma ci baatu noot waaw wàllu noot moom kooku forcé la. Mhm. même sàcc ba nga doon laaj gàllaajam dañ koy forcé wutal ma suufu jumaa. waaw set sell. Mhm. nga jàng téeméer ak fukk ak benn yaakaar fi. Mhm. wakafa allahu. wakafa billahi wakila yàlla doy na wàkkirlu nga def ko sa biir kër nga suul ko wala nga takk ko sàcc bu fa tàbbi du fa génne. bu ko defee itam loola ci xeetu kaaraanga yi la bokk. waaw bu ko defee noot itam. comme nga bëgg a forcé wala nga bëgg a jaakaarloo nit def loo ko loo xam ni faaw mu def ko nga am ci kooku noot gën a gaaw am na ci turu yàlla yoo xam ni ñëpp xam nan ko bu ko defee wa taxsibuhum ayqaazan wa hum ruquudun nit ki dana mel ni ma lay xool fekk nelawal nga ko mhm. kooku am na ci alquran mu am qaxaaru muy turu yàlla boo xam ne noot rek ko yëkkati mhm. mu am fa bu hital lazi kafara ndax bu yéefari ne yonent yàlla Muusa ñu ne ko yow nga ne yow yaa yàlla yàlla mooy yàlla mooy sa yàlla mu ne ko waaw mu ne ya kan mooy sa yàlla ko yàlla mooy ka nga xamante ni mooy jëlee jant bi mhm. ci maanaam fa muy jógee penk yóbbu ko ci soow sow Firawna ne man maa yàlla mu ne ko bu dee yaa yàlla kon jëlal jant wi sow nga yóbbu ko penku Firawna nag foofu la yàlla wax fa buhita lazi kafar xamatul nu muy def mu jaaxle ci boppam ndax loolu mënu ko bu ko defee loolu nag am na ci ñoo xam ni boo leen di noot faw nga xaw a leen jaxase ñu jaaxle ba li nga bëgg ñu def ko ba jeexal ndax euh, émission bi passé toj nga fi njëriñu sarax toj yu leer ba ñu bëri am nañu ko ci jot a essayé gis ci seen bopp del si la ma ci njëriñu sarax waaw wàllu kaaraange baaxe naa fi boo bëggee kaaraange mucc wutal ay dàll dàll hmm. kaaraange la ah. dàll fermé chaussure wala sécurité doo ko dégg hmm. saraxel ma ko nooni dun mën ci yow dara bu fekkee da nga bëgg maanaam dindi bolokaas ci yow wutal ma nen nga raay ko saw yaram nga toj ko hmm. bu dee ay jafe-jafe nga amee maanaam tey ji ay gàllankoor bari ci say mbir bëgg mu génn wutal ma ñetti nen nga baxal ko jox ko góor jox jigéen jox benn mag Mhm. góor ak jigéen boo ci am baax nañu ñu xolli ko buñ koy xolli say jafe-jafe di dakk wala gerte caaf kooku itam day dindi ay jafe-jafe bu dee mhm. wàllu wërsëg nga bëgg wutal ma ginaar bu weex nga mhm. ko bu dee ay cat ngay dàq wutal ma ginaaru pettaaw nga saraxe ko bu dee ay noon wala ay wor ginaar bu xonk nga ko bu dee maanaam wàllu wërsëg nga bëgg wutal jën nga ko jigéen bu jóge marché bu dee njaboot nga bëgg wala am doom wutal légume nga dugg ba mu baax nga saraxe ko di nga am njaboot dan taaj ay lekk sa biir kër sa njaboot di ci lekk bu dee maanaam danga jaxasoo sa xel mi di jaxasoo wutal ma juróomi goro yu bokkul melo <laughs> hmm. wala nga wut caaki rek soow jaxase ko kooku mooy saraxu nja maanaam njaxas nga jox la hmm. sa jaaxle dana dakk bu dee tamit danga am biir buy metti mën nga wut goro bu xonk wala bu weex nga xooj ko ci ndox sangoo ko saraxe goro gi dana teggi jafe-jafe bu dee tamit yaa nga bëgg yàlla jàpp ndil say mbir mu am barke goro dee koy saraxe lu bari ak tàndarma mhm. tël ma tàndarma di ko saraxe baax na ci njaay baax na ci commerce bayre la mhm. waaye dafay maye barke loolu yépp ci xeetu sarax la mhm. bu fekkee da ngay dàq cat wala da nga bañ cat sonal la wutal buy dañ koy macc nga joxe ko bu ñu ko maccee sànni xotti yi cat yi génn ci yow wala siddeem moom itam kooku tamit dafay dàq ay cat dee ubbeeku ngay yootu nga bëgg am wala say mbir dëgër deel génne mbiskit lu bari bu fekkee xaalis nga soxla wutal suukar mhm. nga ñaan ci sa soxla nga saraxe ko maanaam yooyu maa leen ko baaxee waaye dañ ñëwaat ci yeneeni sarax mhm. fii de nga koy déggee xam-xamu alxuraan mhm. xam-xamu tur yàlla xam-xamu baati nag kurus ak ay tegtal waaye ay sarax yoo xam ne sénégalais yi mën a xam sarax bu ne lu muy dox macha allah jërëjëf docteur Mouhamadou Wade jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo lii de bokk ci li tax ñu lay dal saa su nekk ndax ku ñu dal rek damay bëgg ñu koy wéer ci xam-xam ngir ñu ñu topp saa su nekk mën a jëriñu. acca euh, ci réew mi lañ jëm nga ne lan nga gis ci réew mi jamono jamono ji ñu toll rawatina ci jël lànk politique bi ñu ko ŋànk. waaw moom cool yi des na moom ci wàll politique gi waxoon nañ fi moom assemblée gi moom. Mhm. ñaara mën a am. waaw waaw rek mbaa jafe am gàllankoor. d'accord ndax waxoon na ñi fi toog ci réew mi jekkoo guñu mhm. am na sarax gu war ci ñoom te buñ ko defut mbir mi moom dana taxarnaase ci ñoom waaye nag am na ponkal ju ma woo ne ma ah kilifa gi am na yuñ ci jot a def waaye nag amaana nag dañ leen war a dooleel ci assemblée gi ndax luñ bëgg doxal ci Sénégal gi ñu mën koy def mm. gis nañ ñu daal sénégalais yi dofun te dañ xam fu ñu sànni seen carte mm. waaye am na ay député yu ñu wàccee ñu ngi ñuy karkare naan dañoo bëgg dellu ci affaire yi ndax jaaxle am na ci uh-huh. waaw ba am na koo xam ne bëgg naa tey la oto ma ne ko nag defal ndànk rek waaw yàlla jeexut <laughs> waaye nag danga nga bokkaat waaye réew mi tamit dafa war am <laughs> uh-huh. opposition ñu bàyyi ci xel mm-hmm. bu ko defee daal gis nañ ni incha allah assemblée bi danañ majorité. te majorité dana am ci côté maanaam. waa Pastef waaw ah, muy wàllu nguur gi <laughs> bu ko defee itam opposition dana am ñoo xam ni danañ bokkaat mm-hmm. waaw danañ bokkaat ndax am na ñoo xam ni réew mi sopp nañ leen mm-hmm. te bëgg nañ leen joxaat baat mm-hmm. ndax bokk nañ ci liy doxal mbir yi waaye nag euh, ah. ci kanam mi tuuti itam dana am yeneen yu génnaat yoo ah. xam ni ci wàllu politique bi muy jàppante koo xam ni seen du nañ ko ci waaye nag am na ponkal boo xam ni gis nañ itam danañ ko convoqué. Mm-hmm. ci maanaam après élection yi pour xaw ko maanaam tegal ay mm-hmm. jafe-jafe ci wàllu maanaam liñ gis ci moom mm-hmm. ci wàllu maanaam procédure ak ni mu yore woon mbiru réew mi waaw loolu bokk na ci loo xam ne gis nañ ko ci tarkal jërëjëf acca ci lan ngay tàggatoo tey waaw in uridu illa islah wa ma tawfiqi illa billah wa ala allahi falyatawakkal mutawakkilun hada assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh jërëjëf a ñëpp